bokki jullit yi tedd yi ak bokki taalibe murid yi ñu ngi toog ci kanamu kilifa bu tedd yi di Serigne Touba Cheikh mu Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéene jure jëm am ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko mu kawe njortam ñu toog fii nag fas yéene jotle ak kàddu yu néew di jéem a fexe ba ni mu ko santaane donte suñu làmmee lott na ci mën koo jottali ñu jëm ci ba fa suñu kem kertal ñu jëm ko mottali ci yéene kon ci ndigalu sëriñ bi ndax wax ci kanamu sëriñ bi dafa diis ndax koo xam jataay bi mu toogee xam li mu doon boo yëkkati ci turam faw mu diis yow kon ñi mu ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk réew mi di nuy bokk àdduna si di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weer koor nga xam ne ñëpp xam nañ yitte ak positif bi nga xam ne def na ko ci ngir fas yéene ko dundale ni ko lislaam santaane dàkk ci ni ko Sëriñ Tuubaa da dundale mu yóbbante ma nag ay kàddu jëme ko ci taalibi jul murid nga xam ne ñoom la sañe digal sañ leen tere kon kàddu yi ñu ngi jëm ci bokki taalibi murid yi ndax ñoom loolu rek la seq ñoom di ko jëmalee ci wala mbokku jullit boo xam ne yàq mimma yaqbalu nasihata min axihi muslim kon mooy kàddu yi nga xam ne jëme na ko ci yéen kàddu yi nag mooy ginnaaw bu mu leen sante ci li weesu lépp mu am tuuti ay leeral yoo xam ne da ko fas yéenee jëme ci bokk taalibe yi ngir ñëpp maasi ci xam ab tolluwaay ak fi mu toll ak fi nga xam ne fi la nekk loolu itam dafa war a leer ci ñëpp ndax ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa li la war mooy santaane digle ak tere loolu rek nga seq ak nit ñi taalibe itam li ñu seq ak yow mooy sami'naa wa ata'naa loolu rek lañ lañ am seen digg ñoom mooy lépp loo xam ne sëriñ na ko rek boobaa amatul li ci tànn la maa kaana wa maa kaana li mu'minin wala mu'minatin izaa qadaa llaahu wa rasuluhu amran an takuuna lahumul xiyaratu min amrihim kon lépp lu mu santaane rek jëfi ndigal lañ ci war a def santaane bi nag mooy leeral rek moom fi mu toll ngir xam ne lépp loo xam ne dégg na ko muy loo xam ne war naa indi ay rëngi-rëngi war a indi sansatu ci biir réew wala si fam ca nekk ak fam bëgg ñëpp ne fa nee na moom fi mu nekk fii la bokk julli yëpp ne fa fa la yéen bokk bi yëpp ne mooy ñëpp maase ca xam ne lépp loo xam ne luy indi fitna la ci biir réew mi na ko ñëpp wattandiku te sax jàmm te xam ne Serigne Touba ci loolu la nekkoon ci loolu la lool la santaane woon ndax lu ne mas lu ne def nañ ko ko ba tàyyi waaye lu ñu ko mas a defit li muy wax mooy jégal na leen kon seriñ Touba na xam ne du ku ñuy xoolal du ku ñuy xeexal li nga xam ne nag mooy li nga xam ne bëgg na ñëpp xam ko muy lu war a leer ci bokki juri bi nee na daa bëgg ñëpp maase ci xam ne nit balaa doon ab taalibe day doon ab jullit ba noppi nee na kon li ñu war a njëkk a góorgóorlu mooy fexe ba sunu njullit ba sunu njullit wér bu suñu njulli gi suñu taalibe dooru mën a wér waaye nee nit du du mën a doonub taalibe te doonutub julli ba noppi kon nag nee na fii lislaam toll ci ràgg nee na ñun tëluñu lenn lu weesu fexe ba lislaam jëpp nekk yoon say waaye lépp loo xam lu koy xajjal neen moom tëlu loolu te fas yéene na bëgg taalibe yëpp maase ci nekk ko foofu xam ne daal eh, li war a nekk yiteem yite ñëpp mooy fexe ba lislaam ji ni ko rasulullahi digle woon nga xam ne leer na nañ ñi nee na amul lenn lu ci lënt nee lu ci lënt rek ci doomu aadama la waaye suñ borom li mu santaane wàcce ko ci alxuraan lenn lu lënt néew ci kon nag na ñëm ñëpp maase ci xam ne ndegam men lënt amul nag kon li ñu war a def góorlu mooy fexe ba góorgóorlu ci lislaam ji wér taalibi gi wér sëriñ itam ñu xam ne dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon gi mu doon rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax itam bañ na ko ba dafa tudde boppam xaadimu rasul xaadimu rasul nag mooy jëw nit ñi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp tàbbi ci biiram kon mboolem tarixa yëpp itam eh, na ko sëriñ bi daa santaane ku ne xam ne ne sëriñ Tuubaa daana joxe wérdu xaadir daana joxe wérdu tijaan ak astasali ak yeneen yi ci des yëpp kon loolu lim ci jëf wax ko ci laaj yi nga xam ne gouverneur général laajoo na ko ko itam ne ko ñan ñooy yoonu murit yoonu murit juddoo Euh, fan mooy barabam lépp géntoon lislaam daa waxoon ne képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa euh, na nga xam ne ci ak njabootam nga bokk nee na fépp julli nekk euh, rek fa la ñoo di taalibeem kon Sëriñ Tuubaa ci diggam ak kenn koo ne mbokkum jullitam nga ci loolu itam fonk gi mu fonkoon moo tax képp koo xam ne fonk nga Sëriñ Tuubaa itam na nga xam ne boo bokkee ci njabootu rasulullah sallallahu rek bokk nga ci njabootu Serigne Touba waaye nag boo dugg ci njabootu rasulullah wala eh, amoo xamoo lay rasulullah sallallahu loolu doo maa tàbbi ci biir ndax Serigne Touba loolu moo doonoon muhimmam kon loolu noo ko ñëpp xam médaille bi nga xam ne bëggoon nañ ko ko takkal itam la taxoon sëriñ bi gànt ko dafa waxoon ne médaille bu ñu ko ko takkalee. loolu day eh, firndeel ne xajju xajalu ko dem ci biir islam kon nag sëriñ bi nee na loolu kon nee na na ko kilifaam yu jëkkee defoon ndax sëriñ Tuubaa ko santaane woon kooku fi ma sa nekkal ku ne itam ci lii nga nekk xam ngeen ne 1979 80 bi nga xamee ne yu mel nii xewoon na te booba sëriñ Abdul Ahad Mbacke moo fi nekkoon euh, sëriñ Moustapha Bassirou ñëw àndoon koog moom ci xew-xew bu meloon nii Cheikh Abdul Ahad Mbacke taxawaay bu mel nii la ci amoon. mooy xam le ne sëñ Tuubaa du ku ñuy xoolal du ku ñuy xeexal ku ñuy gëm la ku ñuy toppal ku ñuy yaakaar la nee na kon moom itam da ngeen xam ne foofa rek ca la nekk dafa fa siinoo ko wàcc. nee bu dee ci diggam ak bokk julli itam mooy al uxuwatul islamique yi itam nee da koy fetli ndax loolu la fekkoon rawatina nag eh, Cheikh Sidi Moustar mi nga xam ne mooy fa mujj nekk ci xalifa Serigne Touba. nee ci nekkoon rek ci yeesal ko ci diggam ak bokk julli yi bi nee na. nee na loola képp la fas yéene wéyal ci mboole boori kër këri diine yëpp fas yéene lépp àndandoo nekk benn nekk wenn say lépp lu ñuy def euh, mu mu mu dëppoog lislaam lépp lu ñuy def tam mu dëppoog loo xam ne genn luy nuroo ak joo du ci am fa soose rek la fas yéene te tàngam nee na kon mu ngi ñaanal Cheikh Sidou suñu doom doole ay leen saa suñu ci barkem kon nañ xam ne yoon wi nga xam ne waxoon na ko muy ñëpp dégg ko ñaanal foofu rek la ci nekk te loolu la fas yéene yeesal li ci dolli ko waat nag mooy jëm ci taalibe Serigne Touba yi bi nee na mi nga xamante taalibe yëpp na lim yéene boppam rek la leen yéene te moom wax na boppam fi mu jëm wax na it ni mu fas yéene dara desu ji nag nañ xam ne yoon wii di yoonu Serigne Touba Serigne Touba da ko sanc ci yaar ak i teggin nee na kon nag képp koo xam ne yaakaar nga Serigne Touba na nga xam ne lépp looy jëfale Serigne Touba yar ak i teggin moo ci war a jiitu kon nee na loolu mi ngi koy digal taalibe yëpp. ne ñëpp xam ne buñ tënkoo ci ndigal Sëriñ Tuubaa eh, ne ne ci yar ak i teggeen sax ci taal bi mbooleem liñ bëgg danañ ko am bu fekkente ne nag wàcc nañ ko nag boobaa nañ xam ne lu leen ci dal ñoo ko rek seen bopp kon nag nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom dolli jàmm ci réew mi boole xoli jullit yëpp mboolem yi nga xam ne ñooy kër lislaam yi ci biir réew mi itam suñu borom gën leen a boole ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ne yaar rek fi nekk innamal mu'minuuna ixwatun mu ne ak tey la inna sheytaan lakum aduwwun mu ne ak nax la mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag innama mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag nax gi ci inna innama inna sheytaan lakum aduwwun mënu ko yàq kon nag nee na nañ xam ne eh, lii di kër lislaam yi eh, defar ci ba jëm cee defar rek moo ci am waaye yàq ci moom kenn mënu ko ndax lu leen jiitu la te kilifa yi fi nekkoon fàggu nañ ko ba kon nag moom ci liggéeyam ak li mu fas yéene Sëriñ Tuubaa fas na ko yéene ànd ak bokk jullit yi fas ko yéene ànd ak bokk taalibe te teg teg ko nag lépp nag ci sunna su rasulullah sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci ndenkaay na Serigne Touba te fas ko fas ko yéene wàcc te fas ci fas ci yéene dugal dara fas ci yéene génn lenn loo xam ne lu bokk lu ci Serigne Touba gén dugaloon la wala loo xam ne Serigne Touba bëggatoo mu tàbbi ci biir kon nag euh, ngir bañ a guddal rek Serigne bi naan mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu fekkee am naa lu ma ci wax dolliwaat nag.